waaw ñu day wax dëgg yàlla depuis kañ lañ fa ñëw sax presque le huit le huit le huit ba léegi ñu ngi fii franchement parler fii affaire yi métti na trop trop lekk yi moom doy na waar vraiment lekk yi doy na waar ba pare en même temps maa ngi fi man sama njaboot sa laa fi nekkal depuis presque mat na euh, vingt jours si tey ñu ngi fii defuñu defuñu ñu fi dara waaw garab yi ñu joxoon jeex na joxuñu ne garab vraiment sonn nañ fi trop trop trop waaw ñu nag wax dëgg yàlla fi mu ne nii moom dañu bëgg a ñibbi waaw ñibbi nag ma la bëgg te xam naa ne moom li ñu olof Njaay naa mag moom bu dee ba sës rek xamal ni bu waxee bu waxee rek sës na instant bi daal mooy ñun ku dimbali ñu fii lekk yi moom doy waar nekkin bi neexul moom daal sonn nañ fi daal sonn fi lool fa sonn egg egg nañ fa waaw. waaw grand bi noonu la demee rek waaw noonu la demee quoi lu suñu papa ji wax rek waaw noonu la demee waaw ndimbal nag soxla nañ ko lool ndax yàgg na te metti na parce que man booy xool man man ba ma fiy ñëw ma ngi fekk sumay frère sumay frère laa fi fekk waaw ñoo fi nekk nii ay booy wax na yu ma jox cër lu mu leen wax la ñuy def si lu baax waaw ñoom laa fi fekk ñoom tey boo xoolee ba xool tey am nañu fi tey 22 jours man tey am naa fi 15 jours xam nga ne loolu dafa metti nga bàyyi sa njaboot ginnaaw bàyyi sa lépp ginnaaw ñu andil la foo xamante ne daan la jox ay garab dem ba benn sant joxatuñu la garab garab yi dem ba jeex waxatuñu la dara ah waxatuñu la dara bàyyi la si barab nii rek test yi metti dund bi metti da lay jox loo xamante ne boo ko joxoon xale xale boo xamante ne dafa am cinq ans mën na ko lekk ci ay waxtu ñu koy jox ay magum jëm seen lekk yi balaa mu ñëw heure ba heure la trois repas la waaw trois repas yi xam nañ ni mu demee dix heures ngay ndékki quatre heures mooy ngay añ vingt trois heures ngay reer mais loolu dafa metti dafa metti quoi ñun nag ñu ngi ñaan ndimbal waa ñu ngi ñu ngi ñu ngi woo daal ndimbal daal waaw ñun daal ndimbal daal la ñu bëgg daal ndimbal ku ñu jàppale la ñu bëgg ba ñu génnee fii jëlee ñu fii ba ñibaat suñu njaboot ñibaat suñu famille waaw parce que nit lu dul famille ah. waaw parce que man boo xoolee boo xool sama yaay dañ ko jël quarantaine samay sœur samay frère suñu kër ñu tëj ko métti na kenn nekku fa waaw xoolal genre risque bi mel noonu waaw xoolal risque yi mel noonu kenn nekku suñu kër métti na trop ñun daal lu ñuy dund fi ñoo ko xam billaay ñoo ko xam lii nag maanaam ku la ko waxul mënu ko xam waaw ñu nag dañ ko dund peut être gis ko te xam ko moo tax ñu koy expliquer métti na lool métti na lool ñu ngi ñaan nag maanaam kilifa yi nekk si réew mi yëpp ñu jóg si lii ñu jóg si lii ndax seen ay doom ñoo fi ne waaw njaboot ñoo fi ne njaboot yoo xam ne ëllëg ñoo war a yor réew mi waaw métti na lool métti na trop. waaw comme ni ko saa waxee rek ñun li ñu déclaré mooy asymptomatique te boobu ba léegi nii ñu ngi nii toog am nañ fi vingt jours am na ñu fi am vingt deux jours waxuñu ñu dara naan nañ garab ñu ñëw jox ñu ñaari tablette chloroquine ñun naan ko biñ ko naanee boobu ba léegi tamit saay bu ñu la defalee test tey ñu ñëw ne la négatif suba ñu ne la positif kenn xamul lii lan la te nag ñu ngi dégg information lu ne ñun instant yi tiit nañu jaaxle nañu parce que ñi ngi naan dañuy dindi chloroquine te buñ ko dindee ñun jël nañ chloroquine léegi buñ ko dindee dinañ jéem a indi fii ay vaccin te ñun nag yooyu yëpp wóoluwuñu ko ñun li ñu bëgg mooy ñu jàppale ñu dem ñibbi suñu kër sant yàlla loolu lañ bëgg néew loolu ñu si mun a jàppalee nag dimbali leen ñu si parce que ñu ngi fiy bëgg a yàgg te boo moytu li nañ fi am weer ak lu tegal bu si boo leen si jàppul jàppaleen si bu baax nag waaw